bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk salaamaaleykum jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul maa ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu àdduna di nuyu jàmm gën bi ma dëkk di nuyu sama sëriñ sëriñ Sidi Mbacke Alxuraan di nuyu o foole séeréele nuwanaa leyaw séeré mi simnam gidmam lem nga o ɓi nun o ndogor nun o nda nun mi simna nun andun bo faya ko bo na jeer fane fof mi simna den nuwa refna o séeréer rek mi simnam waaw waaw maa ngi koy préparé ak samay course maa ngi koy préparé ak sama waa écrit waaw maa ngi jàng daal li nga xamante ne lépp loo xamante ne dina ma ko moytuloo moom mi nga xamante ne ndaama la man ma nekk njool maa ngi koy moytu waaw maa ngi koy jàng aussi mais li ci ëpp nag mënu ma ko exploité instant bi na bàyyi ba le premier août ah non non bëre dóor la ñu wax bëre dóor parce que man dama am opportunité boo xamante ne am naa opportunité xeex te moo tax chaque jour même bu nekkul kombaabi bi dama koy liggéey lu bari waaw ah, peut-être nit ñi xamuñu ma si quoi. ah lu dul di koy remercier rek di koy remercier di koy wax ne mbër bu mag la mbër la boo xamante ne àdduna ñëpp ko nangul mbëram waaw man tamit nangul naa ko mais man tamit mbër laa waaw. waaw loolu nag loolu nag ni ma ko dundee mooy man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat moom moo xam waaw man si yàlla laay ñaan parce que yàlla moo yor lépp yàlla moo moom ñun lu ñu def ne ñu sabab lu def rek mais xamuñu sax nañ fekkee suba waaw kon moom bu mu nee xam ne day fekkee bis boobu ba mun a waat si yàlla ne waat ne moom daf may daan loolu moom la concerné mais man maa ngi woo samay mbokk di woo samay mbokk séeréer yëpp laaw fooree séeréer noana leew séeréer mi xooyam mu combat fañ ko tam tam siktam lami ɓiyo séeréer refum to andim ka refer na jom kon séeréer fof mi hoyaden comme ten gueno alay billahi wallahi wa taala maaf ka maaf min mi heeɗano royal no warno séeréer andi joom waawi joom o sikkama waaw li ma wax mooy maa ngi woo sama mbokk séeréer parce que ñun ay séeréer lañ waaw ñu xam làmb lool mun làmb lool waaw te ñoom lépp lu ñu soxla si yaakaar naa li ci ëpp ci séeréer lañ koy wutiyee kon mënuñu yaakaar ba pare bëgg ñu yab man gëwuma loolu waaw man damay wax ne man séeréer laa doomu séeréer laa ci ndey ci baay waaw di leen woo ñu ñëw jàppale ma waaw moom yaakaar bu mu am ba waat si yàlla man tamit yaakaar boobu laa am ba ñaan si yàlla woo samay mbokk ak képp koo xamante ne mun nga ma ñaanal woo naa la di woo sama sëriñ seen Sidi Mbacke alxuraan maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma si combat waaw loolu duma ci debaa du ma wax si loolu parce que lim la wax noonu loolu moo am waaw relation yi ñu seeg loolu nit du ko dindi waaw te nit moom tey yaakaar naa ne doo tàgg nit ba pare suba nga xalab ko waaw man gëwuma lool man si Papa Sow wax waaw maa ngi ñaan yàlla yàlla may ma ndam ban bor laa ko lebaloon waaw mais xam nga xam nga xam nga tarkindaay nga wax xam nga fans yi nga wax kenn ku si ne dangay waxee li ni nga xalaatee ni nga gisee mais ay nit ñu bari dañuy gisee nit ñi ànd mais wala ñu gis nit taxawak ak nit mais xamuñu mais ñun li ñu gëm gëm ko gëm ko mooy komba bi man sama xol laa ci demee sama gëm-gëm laa ci demee bis bi mooma jara jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow waaw du yéen loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen ma waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek du dëgg waaw man xale laa di liggéey li ma gëm maa ngi gëm man nekkuma fii xam lu ma la di expliquer nii wala naa man bu ma sumbeekoo mu sumbeeku man samay tànk damaa xam ne man moom bu ma feccee mu xool samay tànk moom ay tànkam nan la war a mel ah? xaw ma ko man mi yëddu ma loolu man ndam li moo ma intéressé ndam li moo ma mu indi ko sama waa gox indil ko samay nit indil ko samay am di jàmm waaw loolu daal moo ma beneen bi ma ciy tegaat mooy damay woo samay mbokk jàmm gën ak li ko wër banlieue bi yëpp maa ngi leen di woo di woo Lamsar Thiaré asir di woo la jàmm gën si Kambaaw sam-sam waalo waalo yi mu turee combat bi maa ngi leen di woo di woo sama mbokk pël yi waa Fora yi sama papa yi aw ma seen fay waa Fora maa ngi leen di woo waa Mbaar ñëpp maa ngi leen di woo di woo waa Seras caari géej bàyyiwuma kenn maa ngi woo gox bi war ki maam Serafal gétt ñëpp maa leen di woo Fass Mbaaw baay bàyyiwuma kenn guy ga maa ngi woo ñëpp sam-sam tali maam jaara sama koñ yaay képp koo xalaat ne rek woowu ma la rek maa ngi lay di woo sama fans club bi nag di woo waa Gambie Gambie man foofu laa waajalee sama combat waaw. maa ngi leen di woo Gambia people yëpp maa ngi leen di woo waaw sama fan si club bi fa nekk ñëpp maa leen di woo di woo waa Darou bi mu dëkk waaw. waaw may na ma opportunité bu bari opportunité bi ma may mooy moom lu mu dajale war a teg ko si ginnaawam man xëy na may na ma ko physiquement man benn may na ma ko sama derrière parce que moom pour man amul amul kenn ku nekk si ginnaawam si wàllu bëre man ku ma amul. amul kenn ku nekk si ginnaawam ci wàllu kilifteef man bu ma amul. kon leneen li des yëpp pour man communication la rek xam lu ma la waaw man gëwuma loolu li ma gëm mooy dem indi làmb non parce que faay chaque jour foofu lay jógee faay chaque jour foofu lañ jógee parce que ñun dañoo nekk si dëkk boo xamante ne nee nañ buñ la buñ la buñ buñ maanaam buñ la utee ut ut ut xamuñ fenn fuñ lay jaar. dafa am fu ñu lay ño xamoon xaw ma ñappati lañ koy wax xaw ma na lañ koy wax mais pour man affaire bi jaratul wax parce que li ñu doon wax yëpp wax nañ ko di des bëre la ñaan yàlla yàlla suñu borom may ma ndam ko man loolu lay wax. waaw koo gis si àdduna am na lu muy nëbb li may nëbb nag yàlla naa ko wone le premier avril waaw pour le premier le premier août. waaw ah, ok léegi beneen bi may wax mooy maa ngi woo sama fans yëpp maa ngi leen di sensibiliser. yaa ngi dégg non parce que parce que li ma laaj daf ma daf ma ko laaj pendant trois fois que quatre fois yaa ngi dégg léegi man li may wax mooy sama fan si yëpp laay sensibiliser di leen wax ne maa ngi leen di woo si jàmm di leen wax ne non violence laay woote non violence laay woote parce que xam nga xam nga xam nga ay ndaw di topp sa ginnaaw man ay supporter xale laa am te ñun ku xool fu ñu dëkk ci banlieue nga xool suñu fugg xool ni ñuy doxee automatiquement gisé nga ñu mais li ne suñu biir xol xamoo ko am na ñoo xam ne dañuy gisé fu baax am na ñoo xam ne dañuy gisé fu bon mais loolu yàlla dong moo xam mais wax képp kuy autorité nga jàppale ñu si ndaw ñi may topp ndax que ndaw bu ñu noot wala ndaw bu ñu gaañ benn xale man sama combat bi passé ba léegi amul benn man pour man journaliste yu bëri trouvé wuñu lan moo tax sama combat ma perdre ko parce que dama gaañu blessure boo xamante ne mais pourquoi pas loolu duñ ko wax te loolu dama ñëwoon pour sauver lamb mais ci biir sauver lamb boobu si la ma yàlla xañ man nangu ma gëm xam ne jaam dong laa yaa ngi dégg man nag ndaw laa xëy na yàlla mënu may lépp waaw wax naa ko léegi yaakaar naa ne sóor moom loolu kenn waxatu ko yaakaar naa kuy liggéey xam nga benn question boo xam ne boo ko bëggee répondre pendant huit fois day bari te man bu ma sañoon dañuy tënk rek ñu ñaanalante ku nekk dem lu dëgg waaw waaw man daal li may wax mooy li may insister mooy mooy sama supporters yi yee ñu jàppale leen xam ne ay ndaw lañ kenn ku ci nekk waaw mais léegi doo ma bàyyi wax samay supporters man ba pare waaw samay supporters laa wax maa ngi leen di sensibiliser di leen woo si jàmm di woo non violence laay wootee non violence ñun xamuñu lu bon doxuñu si lu bon ñu làmb yi ñu nekk mooy suñu àdduna ci la ñuy ñaan yàlla tedd ci ci la ñuy ñaan yàlla dimbali si suñu am di jàmm suñu famille képp ku ñu yàlla booleel du dëgg waaw kon ñoo ngi leen di woo si jàmm di wax ne képp ku gis ndaw wala nga nekk homme de na nga jël xale yi sensibiliser leen ñu ñëw si jàmm dal si jàmm am ndam jàmm si jàmm ma loolu laa wax question bi waaw waaw di nga ñaanal réussir rek non métti na yàgg na mais yàlla kay mbiram noonu la demee du dëgg waaw kon nañ gëm rek am yaqim rek waaw di koy ñaanal moom gëm-gëm bu mu am ba suñu borom defal ko lii yàlla na am gëm-gëm boobu leneen ak leneen ak leneen ñëw si àddunaam du dëgg waaw maa ngi sant ñëpp ye seen affiche point com maa ngi jox ndaje ñëpp képp kuy supporteru Siteu Tarkinda maa ngi lay woo nga ñëw seen affiche point com waaw nga jënd fa code bi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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk